voilà dimanche le le le 17 novembre euh, ñu si bëri euh, yëkkati si ay kàddu Anta Babacar Ngom nee na cohabitation la bëgg euh, lan dara <laughs> nañ ma xoolee mooy <laughs> Anta Babacar nee na mhm. cohabitation la bëgg est-ce que euh, yaakaar nga cohabitation dina dina possible aussi euh, di woote li nga xam ne nag moo benn benn benn mobilisation. Mm-hmm. Euh, tàllal loxoom ñëpp ñoo xam tey jii ñu ngi si kujje gi est-ce que premièrement yaakaar nga bloc boobu mu bëgg si kujje gi dina mën a am. et mm-hmm. ensuite est-ce que cohabitation boobu dina doon lu yomb. waaw cohabitation. ci jamono bii. Euh, wax dëgg yàlla <laughs> yaakaaruma ne mun na nekk mooy opposition bi ma lay wax nii rek bu fekkee ne si loolu la wéeru. Dior Dior Dior Cissokho nee na ah moom moomu Ndeye Ndiaye Banaya. non moom moom du dégg Ndeye Ndiaye Banaya si àdduna ndax la ma waxoon euh, président Bassirou Diomaye Faye loolu la def loolu la premier ministre def. <laughs> du am. <laughs> waaw kon DPG amul na ku ma wax Ndeye Ndiaye yaa ma tooñ. da nga ma tooñ. waaw kon nañ nañ nañ ma respecté rek. da ah, fi ne. Euh, bu waaj a taxawee fee di def DPG Owe Lemande Ndiaye. Mhm. tey la treize. assemblée bi tas nañ ko kon DPG amul. ku ma ne Ndeye Ndiaye nag tooñ nga ma. porter plainte pour diffamation <laughs> maa ngi nuyu Talla <laughs> alors euh, Sylla <laughs> man dama jàpp ne cohabit il faut nañ nat kañ la cohabitation naroon am. ci jamono bi Ousmane Sonko di nekk ci opposition. mais jamono boobu un opposant boo xam ne. su ne dama bëgg a def manifestation dañ ko koy tere parce que li muy drainer ci ful da ngay xool xam ne lii waa ji kat fawul laataa loolu dafa jóge ci élection euh, gagné ay local yoo xamante ne tey mairie yu bari def ko raafale laataa loolu Ousmane Sonko au moins ci élection wu 2019 2019 laa wax de waxuma daaw ak daaw jéeg 2019 dafa retrouvé wu avec pour cent ci électorat Sénégal bi ba pare yemu ci mu dajaloo tey ak les Khalifa Sall Yewwi Askan Wi ñamu ñamu bokkaloon cette coalition là. Mhm. ñooñu tey ñoom ñoo réussir imposer euh, li nga xam ne tey bu ñu ko tegoon si yoon sama gëm naa ne élec législative yi la ñuy jógee cohabitation day am. Mhm. parce que résultat yi loolu la génnee. mais tey def nañ tey ñuy def ak seen euh, transhumant yooyu ba ne am nañu kat une une majorité euh, à l'Assemblée nationale. Mhm. donc mbir mi man dama gëm ne ñii ñuy wax nii. je n'ai rien contre Anta moom wax dëgg yàlla mais. jàmbaar la ñëpp bu ñu dajaloo wee gëw ma ni mhm. mën na def grand chose léegi nag euh, foo gis nit yu bëgg dina am nit yu bañ. Mhm. et puis bon mën nga sax di gis une coalition boo xam ne tey euh, yaa Amadou Ba bi nga xam ne moom nee na sos na parti politique am. Mhm. yaa APR de l' coté côté am am na parti politique yi yuy ressuscité euh, di ci ci yeneen côté bi. ak yeneen ak yeneen mais actuellement dafa am une force boo xamante ne nii maanaam force buy màgg la. da ngay ci plus fort reste deux mille dix neuf euh, deux mille dix neuf ak quinze pour cent euh, deux mille vingt et un deux mille deux mille vingt deux ak euh, tey jii local yeeg législative yi fi jàll aujourd'hui ñoom il se retrouve ak une grande coalition gagné élection maanaam une opposition buy gagné des élections présidentielles au premier tour avec plus de cinq ak cinquante quatre pour cent mhm. maanaam loolu benn ascension la te man dama jóg dama gëm ne ba fi ñu toog nii nii ascension bi day gën a yéeg mhm. maanaam koo xam ne moom ci ay jafe-jafe la nekk ñu koy euh, ñu koy ñu koy ñu koy tuumaal da ngaa bañ sëriñ si da ngaa def nangam da ngaa def nii ay robel ngeen jàpp ni ñuy ci kaso bi ci condition boobu maanaam bi ngay waaj législative am na sa ñoom ñu nekk prison bi ngay waaj local am na sa ñoom ñu nekk prison am na ñoo xamante ne ñu ngi ñu ngi nekk situation yu xaw a métti uh-huh. ci circonstances yooyu yow tu réussis à euh, teg yi de résultat yi kooku gëm naa ne eh yooyu askan wi moom suñ koy wax dëgg yàlla uh-huh. Sonko le plus euh, ay virgule zéro ay virgule quelque quoi uh-huh. maanaam mais yooyu askan wi c'est Ousmane Sonko ñoom nag bañ nañ ko. Mhm. doguma la. waaw Dior Cissokho nee na naa defar ay waxam. waxul moom moom mooy Ndeye Ndiaye Banaya mais daf ni moom moo du Ndeye Ndiaye Banaya. ah nay leer de <laughs> merci beaucoup Dior. <laughs> nay leer Dior Dior nay leer rek. Mhm. mais ñooñu tey bu ñu demee ba ba nar a imposer une cohabitation parce que dafa am doole bu nekk si biir opposition. Mhm. et cette force là pour dire vrai c'était Ousmane Sonko. bu doon 100 pour cent dama ne 90 pour cent yi mbaa lu ko ëpp c'était Ousmane Sonko. donc ñoom ñii tey ñoo xamante ne tey ala ñi ñi bokkoon pré sant yàlla comme législative amul. j'espère que cette fois-ci au moins euh, ñoom ils auront l'occasion ñu bokk ci élection yii nii. parce que parce que ñu ngi ñu ngi xamal ni élection législative yi moom ay constitutionnalistes ñoo koy wax. Mhm. Euh, déposer parrainage bi du du obligatoire. Mhm. non dafa dafa daf see xajul sax parce que. <laughs> mais yow gis nga temps bi ñu jël ci président yi. Mhm. dugg fii génn fii Alioune lañ diw fo dèjà fa mu am jour yoo xam ne si la gars yi war a dem euh, pour collecter ji parrainage. parrainage yi bu ñu jógee ñëw dellu ñuy wax diw jàll nag diw jàllul ak. Mhm. loolu peut-être ci ci euh, délai bi nga xam ne nii euh, moom moo fi moom moo fi nekk du si xaj. et puis dégg naa sax ñu naan non loolu c'est normal parce que. président amul droit def élection yoo xam ne nii tey maanaam ci ban base la tegu pour parrainage a am mhm. li nga wax léegi-léegi rek maanaam maanaam code électoral am na. Mhm. mais la constitution moom moo nekk au-dessus de tout. donc constitution tey moom moo mooy président et puis 2025 bi ñu war a dugg mu am lu bëri lu ñu war a lijjanti. donc mhm. si urgence la la la réew mi toll. mais man ñii ma gis nii si opposition bi. c'est leur mhm. droit mën nañ dajaloo euh, ñoom ñëpp seen biir et déjà dajaloo boobu day poser problème. parce que opposition boo xamante ne tey euh, est-ce que am na. benn kenn koo xam ne da nga ne ah dayoom kat moom bu bu bootee mën na yóbbaale gars yi. mais mais mais tey jii bu fekkee comme ni ko Anta Babacar waxee. Mhm. Euh, dajaloo boobu comme ni ko ko junjee aussi. Mhm. Euh, bu nu gisee Papa Djibril Fall ñëw Thierno Bocoum ñëw Bougane Gueye Dany ñëw. kuy jiitu. <laughs> doomu mbay ma daaneel. <laughs> non attends defal naa ñoom ñëpp d'accord naa dañuy ànd mais kuy jiitu kan mooy nekk tëdd liste bi. doomu mbay ma daaneel pare. non dama bëgg ñu taxaw foofu ba pare. <laughs> ñoom ñëpp ko say jiitu. ñoom ñëpp buñ na demoon bay ànd ñu ne Bougane nag Thierno Bocoum dañuy ànd ak Thierno Alassane Sall xam naa ci lenn de dajale ñoom ñëpp seen force <laughs> jël kenn ni ko yaay yaay tëdd ah, liste problème bi de loolu la bu doon élection dañuy tëb rek dem moom mën nañoo ànd mhm. mais comme dañoo war a defar une liste boo xamante ne maanaam yow loo gën a jege kaw gi rek sa chance pour dugg assemblée gën a yomb nga indi tey mais Bougane pour moom gëm sa bopp c'est la plus grande formation politique de ce pays tey jii un Pape Djibril Fall <laughs> gis nañ la dernière fois ak coalition ba mu àndal mhm. mais fekk même des partis politique jël récépissé bi ba demee récépissé wu l'autre là Amirou Thiaw mhm. mais dajale ñooñu ñëpp dem jàll Pire Forest bàyyi ñoom Amadou Thiaw foofu dem toog assemblée nationale léegi yooyu tey day yee homme politique yi est-ce que tey di gis koo xam ne dina nangu euh, Bougane ñu ne ko par exemple yaay nekk cinquième position euh, Thierno Alassane Sall mooy jiitu ak loolu bàyyi naa ko ñoom seen biir bu dee dañoo bëgg a coaliser. Mhm. foofu rek foofu rek defe naa problème bi fa la nar a nekk mais en tout cas c'est leur droit mën nañu dajaloo mais wax dëgg yàlla. Mhm. bon Ousmane Sonko am na ñu ko bëgg am na ñu ko bañ. Mhm. Bassirou Diomaye Faye am na ñu ànd ak moom am na moom. Uh-huh. et instant bi boo seetloo même njabootu Macky Sall gi dañuy dem di euh, di di di di topp ñooñu nga xam ne tey ñoom ñoo ñoom ñoo nekk contre pouvoir. Uh-huh. mooy da ngay gis tey jii Bougane man leen li maanaam bu fekkee da nga bëgg a xool ndax yaa ngi ci yoon am déet. Uh-huh. xam nga ni dafay logique. si la yow naka ngay xeexee Macky Sall ànd ak Macky Sall di di la sànni xeer di la yekk lu ne. si la ñooñu yow boo demee ba bis taxaw ñooñu ñëw toppaat sa ginnaaw yow ànd ak yow doo doo am lu la jaaxal. maanaam waa APR ñëw ci ginnaaw Bougane ne ko non yaa fi nekk. Oh, loolu teewul xel. teewul xel moom maanaam yow yaa changé wala ñoom ñoo changé. Mhm. pour man loolu war na leen interpeller ñoom ñëpp. parce que mhm. tey man mënuma fi nekk di contre Macky Sall di contre waa APR. nga jékki-jékki waa APR ñëw di ci yow quoi soo toogee plateau ñu lay partagé di la waxtaanee allez Bougane. Mhm. te loolu la ko léegi yow yaa changé wala ñoom ñoo changé position donc pour man ñoom loolu war na leen mën a interpeller pour que ñu xool est-ce que si ligne bi ñu nekk foofu la. donc Euh, ñoom mun su leen neexee ñu coaliser waaye wax dëgg fa yàlla ay mhm. anta xeebu ma leen de résultat euh, présidentiel itam mi ngi fi mhm. mais dama gëm ne suñ deful attention lu lu inédit xam nga le fait que euh, élection présidentielle yi mhm. opposition ñëw gagné au premier loolu si lu inédit la si histoire Sénégal mais bu ñu deful attention lu gën a inédit moom inédit moom lañ nar a gis ci élection législative yi nii ci ci résultat yi nga xam ne nii moom la nar a génne parce maanaam une opposition pour que mu doon am doole il nous faut une opposition sérieuse maanaam du nekk opposition boo xam ne ñoo xam dañoo mer rek ak dañoo am lu leen naqari rek ñoo ñëw di voter mais une opposition boo xam ne da ngaa teg un discours boo xam ne nit ñi dañ cee gis seen bopp ñëw jàppale ci loolu. man de lenn moom xam naa ko fu ñuy defaree liste ngir yàlla nan ma woo man leen buggaan na nga def di liste. parce que il faut que ñu xam. dayoo quoi yow dañ la dugg ba mu demee yow askan wi. nu nu mu demee. couleur la waxoon nee na dañoo def couleur. waaw nañ dem yàlla ñu fi yàlla bàyyi man ak yow si laa yàlla ñu yàlla bàyyi si jàmm bu fekkee ne coalition dina am seen biir mhm. te pour coalition am c'est problème parce que ñoom opposants yi ku ci nekk pour yow mais xool Ousmane Sonko ñi doon feb fédéré euh, opposition bi mhm. est-ce que xam nga ne bu ñu ba pare maanaam Pastef Ousmane Sonko mi nga xam ne ci dayoo moo leen ëpp dayoo fuuf bu ñu ba noppi Ousmane Sonko lu ci bëri moom li mu war a am da koy jox ñeneen ay Euh, militant wu parti woon di mer. Mhm. maanaam dañuy séddale ñu am fenn un militant de Pastef keneen ku bokk taxaw wala feneen ak feneen Ousmane Sonko ne militant bàyyil ki bokk euh, taxaw jël. Mhm. weñ ay loxo militant pour di jox ñeneen tey jii nii mais mairie de Dakar Abass Fall mënu woon nekk maire. Mhm. kan moo ko gën a mérité loolu. dafa mais dafa weñ loxo. da ko bàyyil Barth mu dem Ousmane Sonko a porté la candidature de Barthélémy Diaz. qui n'est pas de Pastef. xalifa Sall porté wul candidature am parce que jamono boobu noonu y avait Soham Wardini Ousmane Sonko moo imposé Barthélémy Dias pour que mu nekk maire à Dakar. imposé candidature am imposé mbir yi ba mu agsi fii. donc tey kooku façon boobu mu amee woon tey benn euh, benn benn benn xeetu euh, générosité pour séddale mbir yi maanaam mu leer ko ne Ousmane Sonko xam na ne bagage bi nag li si bëri ci loxoom la tegu. mais mu nangu ko bokk ak ñeneen ñi. yow sa digganteeg naan da leen di ëmb yu nañ dem danañ danañ ci gis lu leer nañ mais li ma leer ba leer mooy. Mhm. maanaam bu fekkee da nga bëgg euh, sénégalais yi jox la bopp ci politique il faut nga am discours bu sérieux mënoo mhm. dëkk chaque fois ci ay contre vérité nit ñi ñoo doful maanaam les gens sont très informés xoolal je te donne un exemple Pape Djibril Fall li ñu def démb mais loolu malhonnêteté la manipulation la. moom RTS. moom RTS léegi loolu man le sénégalais bi déglu loolu mu leer ma ne kii nii du mais dëgguwul. Mhm. après dama dem jël sama carte sànniyal ko nit kooku. yow nga dem ci ci ci ñu invité la RTS si benn plateau bu war am après vingt heures. vingt heures pile la waroon démarrer. oui après journal vingt heures. nga nga nga nga nga par la suite président programmé ab message à la nation. mais la chaîne nationale ñëpp xam nañ ne président de la république buy wax kat foofu la ko nit ñi di xaare nga am une émission à vingt heures. nga dégganteeg journaliste bi lui-même mu wax journaliste bi ne ko mais est-ce que mbir mi dina mën a dafa war a ab adresse à la nation à vingt heures ko bon loolu xaaral ñu ñu kii après ñu xoolaat ñu toog ba dernier moment bi journaliste confirmé ko ne ko donc émission bi du mën a nekk proposé ko ne ko am na une édition spéciale buy am ci guddi gi après mooy bi ngeen di seetaan démb eh, Pape Alé Niang fi mu toog noonu ak le professeur Sidi euh, Sidi Alpha Ndiaye mhm. ñu proposé ko ne ko mais bu jeexee mën ngaa ñëw waa ji ne moom ñëwul décliné après mu dem tranquillement sur sa page Facebook pour dire que ni dañ li ñuy def ni RTS du yoon parce que dama am mais injustement uh-huh. dañ maa censuré sëñ bi nañ waxante dëgg opposition man mënoo nekk si dëkk bi bëgg a cenc nit ñi bëgg a yóbbu si bëgg a bëgg saa jël seen ay ay carte ci ci ci loo xam ne wax lu dul dëgg la uh-huh. ça loolu du marché sénégalais bi xool analyser cette situation la am xelam mais mu xool li xew sa diggante ak RTS mais kooku sëñ bi boo ko dugalee assemblée sax musiba la uh-huh. parce que honnêteté dafa bokk ci li ñuy nattee un homme politique ku ci nekk ci ñoom mën naa la wax mais Bougane <laughs> penalty sur penalty penalty maanaam am na nit yoo xam ne xanaa xamoo am na nit yoo xamante ne boo leen laajoon démb ak bërki dem dañuy gis ni rek bëgg ko ni te yàlla tax. Mhm. am na ñoo xam dañuy gis Bougane rek bëgg ko. na ñoo xam ne bu ñu dégloo discours am dañ naan ah kii de kat wax dëgg yàlla jàmbaar la. Mhm. am na ñoo xam ne bu ñu ko gisee ak parcours bi mu def tey ci ci biir réew mi dañ koy naw ci loolu ñooñu bañuñu la. mais ngay ridiculiser sa bopp de jour en jour chaque jour nga ñëw wax ñu xam na li nga wax du dëgg. Hmm. da nga war da koo sos créer say wax ñëw indi ñoom ñoo waxoon lii ñoom ñoo waxoon lii ñu jël la di la vaar ak yeneen ak yeneen mais loolu da ngay dem ba da ngay perdre sa crédibilité. Hmm. et loolu ne loolu boo ko boo ko boo ko boo ko euh, dajalee yooyu noonu yëpp tey mais boo waree dem ci ay élections euh, législatives est-ce que sénégalais yi dinañ dogu ne ñun dañu bëgg Bougane à l'Assemblée nationale. un Guy Marius Sagna uh-huh. et pour man affaire yi dina dina neex quoi def liste départementale yeeg yu demee noonu gars dem xëccoo ñu xool. Ah, mais mais mais Momo. Euh, si la nga baal ma ñi ngay nañ dem xool ku ci nekk élection ba nga bokk ñaata nga ca amoon <laughs> nañ dem xool ku ci nekk. Anta de moo demoon élection présidentielle. ñaata pour cent la amoon. Thierno euh, Thierno Alassane Sall. zéro virgule léegi jëlal seen zéro virgule nga dajale loolu zéro virgule nga xool lay jox. daa digg un pour cent Bougane bu mu bokkee local local sa dëkk fi nga dëkk. <laughs> Sacré-Cœur 675 voix. Mermoz bi. Mermoz Sacré-Cœur fii si ginnaaw. ngeen ñaata 675 voix la am 675 voix. barki yàlla su la neexee ma génne la chiffre yi. du <laughs> dëgg billaahi bulaat walaay 600 lan. voilà ba mu bokkee ci local local fi nga dëkk sa kër sa kër fi nga ko tabax fi nga dëkk sa koñ sa waa koñ say mbokk say dëkkandoo. ah est-ce ah, ñëpp xam nañu dëkk. <laughs> si la kër góor gi. daal gox bi nga dëkk gox bi nga dëkk. nga dem élection. <laughs> nga dem élection gox bi nga dëkk ni damaa bëgg a nekk maire. six cent soixante quinze voix. munoo am mille voix. xanaa waa gëm si kooku ngeen yaakaar cohabitation. attends waa gëm sa bopp xanaa xanaa lu mu bon bon ëpp na ëpp na six cent. non xëy na waa gëm sa bopp ñoom ñëpp dañoo dëkkee côté Ndar yeneen ak yeneen. bi war na am. Sacré-Cœur bi six cent soixante quinze voix la am demal vérifier. <laughs> ay mais yow saa waay. ci nga dëkk 675. fi mu dëkk local. maire local maanaam commune commune ab daggitu commune. 665 675 voix la man moom wax dëgg yàlla tekkiwu ma dara mais moo demoon daggan naa am lu ëpp loolu. si ni warante dëgg. Mhm. waaw léegi ñooñu nga yaakaar tey pour une cohabitation à l'Assemblée national bu fekkoon ne ñu ngi si taxawaay boo xam ne askan wi dinañ la ñeene ah kii kat mu ñuy taxawal wala kii kat mais lan moo nekkoon position Bougane ci dissolution ñaari institution yi. Mhm. teguwul si yoon au moment où askan wi ñoom liñ leen wax doy na leen. Uh-huh. ñu leen wax doy leen moo tax ñu votal Bassirou Diomaye Faye liñ leen wax doy leen moo tax tey euh, ñoom ñëpp ñu pare à ce que loolu mën a am ndax dañoo jàpp ne loolu buñ ko uh-huh. defee njëriñ li ci ñoom askan wi lay dellu si yow nga taxaw ne da ngay opposé wu si loolu a chaque fois c'est comme ça bu uh-huh. borom jakarta yi dëj sax bu amee nga dem politiser ko. maa ko gis barki dem mu taxaw si rob beeg dóor kab bi mel ni ku jëm concert hip hop quoi. Mhm. ñëw taxaw si si si si et puis pare di yëkkati un discours bu mel noonu maanaam loolu doon na marché peut-être bu fekkoon ne nit nit ñi yeewuñu. Mhm. mais jamono bii nii politique pour nga def ko maanaam nit ñi ànd ak yow. Mhm. faaw nga di discours bu leer naññi naññi naññi Sénégal moo dul ay nit ñu ñu ñuy nax nii nii moo yombatul. aujourd'hui yaa Amadou Ba <laughs> moom moom <laughs> opposition bu sedd bi. donc yooyu yëpp mais moom nag au moins gëm naa ne ak ñi nekk biir APR am na loo xam ne tey seen électoral ñoom ñoo ko moom des zones yoo xam ne am nañ fa doole am nañ fa ay maire am nañ fa ay député wala yenn zone yoo xam ne téye nañ ko seen loxo donte mbirum ñu ngi koy foqate parce que si la mhm. gis nga mbir mi lu xamul tax coow lu bëri pouvoir moo am fu muy jógee di toxu di dem feneen mhm. toxu boobu nag buy toxu nekkul ne dañuy jékki-jékki rek jëloon bagage yëpp yóbbu de mhm. pouvoir buy toxu dañuy jékki-jékki ñu ne président Euh, yëkkati na euh, gagné na euh, président Macky Sall. bu gagné ba pare lu des nomination yi. ñu neen voilà teg na gouvernement bu bees benn nomination yi fal na DG wu fii fal na DG wu fële fal na DG wu fële. noonu lañ koy toppee maanaam toxu bi da ngay ñëw rek roñ say bagage yóbbu mais bagage yi moom day day jóge fii di dem fee ndànk-ndànk léegi bagage yooyu di dem ñu ne la. am nañ ay institutions yi ne ci biir réew mi. nguur gi ñàkk nga ko maanaam yoretoo pouvoir exécutif bi. pouvoir législatif bi moom lañ nekk sur le plan de perte actuellement. Uh-huh. ñaari institution yooyu nga xam ne dañ koo teg pour que gën a yokk seen doole ñaari institution yooyu moom fi mu ne mi ngi dans le coma. Uh-huh. te dañoo jëm ci dissoudre ko bu ñu gañee euh, li nga xam ne moom moo di. Euh, euh, législative législative yi. Uh-huh. léegi maanaam da nga dem ba finalement yow tu te retrouves ak ay loxo loxoy neen donc loolu moom moo nekk di xew waa léegi yow boo toogee waa ji ñëw. même si nag man et puis. daa daa mel ni sax assemblée bi moo nekkoon dernière carte bu benn wax. yaakaar jeex na bi moom moo nekkoon dernière carte parce que amoon nga fa une majorité majorité boobu nga nar ko ñàkk mu leer la ne yow lii nga téye woon nii eh, waxuma la élection ren de. Uh-huh. élection wu deux euh, vingt trois la wala vingt deux. Eh, eh, élection la législative bi c'était en uh-huh. ni mu demee man dama gëm ne su suñu tegoon mbir bi ci yoon rek cohabitation bi day leer waxuma la ak jamono jii ñu nekk nii. maanaam jamono boobu fexe nañ ba bluffé def la ñuy def affaire bi xaw a compliqué uh-huh. mais dama gëm ne élection yi buñ ci demee suñ deful attention uh-huh. di gis loo xam ne mosoo ko gis ci ci ay élection législative parce que il faut que ngay déglu askan wi soo nekkee en politique uh-huh. mais sëñ bi askan wi bu nee fii laa bëgg bu dem nga ne fële laa jëm askan wi jël yoonu boppam te gëm naa ne moom waxi cohabitation moom bon élection dina neex parce que suñ ne euh, parrainage amul blocus yi am jamonoy mag Sall amul kaa leen bokk lépp ci de manière démocratique koy defee amul kenn ku ñuy ragal amul kenn ku ñuy fàdd ay tànkam. Mhm. ku ñëw leen bokk candidature yu bëree bëree bëri lañ nar a gis xam naa li si moom bu ñu ko tegalee dina toll nii. dina bëri mais euh, dina am ñenn ñu am chance peut-être dem par plus fort reste wala ñeneen ñoo xam ne leen gunge parce législative lool la mooy am na ñoo xam te dinañ ànd ak Pastef mais mën nañ gis beneen waaye dem dem votel waa jooju mhm. donc ci mesure boobu man gëm naa ne am na loo xam ne mën na changer ci ci élection yi mais bu fekkee ni ces politiciens yii may dégg nii ak seen xeetu discours yii mhm. yaakaaruma ne ça peut changer grand chose mais mais moomoo ci ay ci ay xibaar aussi ñu ngi xamal ni boo moytuwul élection euh, législative yi ñuy dëgmal boo moytuwul Ousmane Sonko moom mooy nekk euh, tête de liste